tey nag maa ngi fii si Pikine seet si Malick Ndiaye 137 fu mu war a jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Bou Siteu Malick Ndiaye di ndaanaan nag di champion gëj a bëre nag raaroon ci làmb xëj na nag ci biir waxtaan bi loolu yëpp dina ko leeral euh, mu war a dajeeg ndaanaan moom it doomu Géejawaay doomu Pikine war a daje muy ñoom ñaar coow li bëri wax ji bëri te dara xewagul te damay faral di wax naan ah coow li li jour ba lay doon Eh, ñaari xale yi loolu du yomb signature neex na lépp neex na Malick kenn dootu ko présenté ndax ku ne xam na ne def na dara ci làmb ndax ku bëreeg ama seen junior ak ña sa des kooku ko na làmb Malick maa ngi nuy nuyu di la siyaar. waaw maa ngi lay fay pël bu rafet maa ngi lay fay di la siyaar di la laaj sa wàccuwaay di rafetlu seen teewaay dérangement bu ngeen dérangé dérangement bi ngeen dérangé ñëw sama ko ñëw seet si ma ñëw war a jàkkaarloo ak man mu tàng jër waaw te man bëgguma lu sedd. du sedd sa waaw na tàng rek. noonu la demee nag. Malick Ndiaye 137 fois tey boo ma doon wax si sa carrière lan nga may wax ban moment la Malick dugg ci làmb. ban moment la Malick dugg si làmb Malick dafa nekk xale rek man la sama. dafa nekk xale rek bëgg làmb. waaw. da ànd ak samay mag rek ay paptin syndicat laa doon àndal di leen teel seen cumukaay di ànd ak ay paata bale di leen teel seen cumukaay. di ànd ak mbëru Pikine nii daal ku si bëri rek mën na samaay ma dem mbapat ñëw teel la sa cumukaay affaire yooyu ba màgg seen biir di bëri seen biir waaw nag ba yàlla def ma lim ma def nag mais per MSC lépp lu ma lépp lu ma doon rek ginnaaw yàlla ak yenente bi moom moo ko def si man quoi. mbapat nga Malick Ndiaye mbapat na. mbapat lu ma de wax dëgg yàlla benn mbëru benn mbëru Pikine lu jaloore bu ma def si mbapat Pikine amul bër bu dëkk Pikine di takk ngemb. kon maanaam toj nga mbapat déggoo li ma la de Pikine Pikine laa la wax Pikine si boppam carrière mbapat buñ ko si doon xool Malick Ndiaye kenn amu benn champion bu fi yeewoo di takk ngemb dàq ma carrière carrière waaw noonu la demee nag d'accord nga ñëw ñu ñëw ci euh, arène waaw sa combat arène mm. ñaata combat la Malick Ndiaye bëri sama combat arène defe naa treize combat ñaata victoire euh, trois trois laa ci am trois défaites lépp ay victoire waaw onze victoire nga am waaw non non dix victoire trois défaites. waaw kan moo la njëkka daan. ku ma njëkk daan ah ñooñu jaru may tudd seen tur dileen leen mayaat bës loolu passé na comprendre fu may ak yow man lu nekk sama kanam laay xool quoi. ci ban combat nga si sa ñaata combat nga amee défaite. yooyu du ma si wax. mais premier combat la Malick am défaite wala dañuy waxtaan. non non man bëre naa ba am cinq combats sama sixième combat laay soog am défaite. waaw doo téye micro bi normal. sama sixième combat laay soog am défaite. sa premier combat. arène fan la la fekk ci lan la la fekk ci yan moment. sama premier combat arène si yan moment la ma fekk. dama fekk ma bëre ji Jurbel Jurbel sama premier combat arène maak ji la ma laa jot daan ko préparé waat foofu noonu samay contact jóge Jurbel ñëw fii euh, bëre turam bër daan ko. no bëreeg Ndiasse 2 daan ko trompeur ñëw ne tamit day jël revanche ñoom ñaar ñoo bokkoon écurie te lépp waay la comprendre fu may yow. est-ce que xam nga ne micro boo ko teewul li ngay wax internet yi duñ ko dégg. voilà te lépp géejawaay la. Mm-hmm. yaa ngi dégg fu yow. Ndiasse 2 la njëkk a daan ba ma daanee Ndiasse 2 ñoom ñaar ñoo bokk benn écurie tërëm për ñëw jëlal ko jëlal ko revanche ñëw ma teg ko ci comprendre fu may yow. Mm-hmm. a ah, noonu la demee nag. macha allah Malick nga doon champion doon daanaan nga gëj ci làmb ji sa raar ci làmb ji lan la. non du dara ne parce que ñun amuñu làmb kese quoi ñun budul làmb ñoo ngi si leneen ak leneen. te gëjuñu si làmb noonu trois ans trois ans trois ans lañ toog bëréewuñu trois ans ci carrière te trois ans lañ toog bëréewuñu te nekkul ñun ñoo toog nekkul ñàkk combat moo ñu teye bëree ndax parce que ñun ñun man ba heure bu ma bëggee combat man dama koy am mm. waaw nekkul ñàkk combat xaritu promoteur yi nga waaw xaritu promoteur laa xaritu ñëpp laa d'accord mais Malick Thiandoum ak ñoom ñëpp samay père lañ suma Malick Thiandoum maa koy di ko gërëm waaw di ko siyaar saa su ne mhm. Max Mbergane di siyaar sama père lamb yëpp mhm. Bécaye Mbaye Modou Mbaye maa ngi leen di siyaar yéen axlu lamb waaw di jàpp leen lamb bu dëgër ndax parce que ñun amuñu lu dul lamb lamb mooy suñu culture waaw mooy suñu cosaan mooy suñu cosaan mais nag dañoo for ci wéewu béykat Malick Ndiaye lu tax farataalatul lamb mooy ay waajuram yàlla nañu yàlla dañ ko bàyyil kër chaque weer ci loolu lay euh, jafandu maanaam salaire la Malick yor moo tax faalewut làmb à 100 pour cent. waaw sant loolu am waaw sant yàlla waa loolu am na mais nekkul looloo tax tamit faale ma làmb làmb yàlla mooy xool lu ko neex mu def rek mbooloo la rek waaw mbooloo mi yàllaay tànn ku ko neex mu génne ko. Hmm. yàlla mooy xool lu ko neex mu def kon Malick làmb ak ñàkk làmb moom li mu war a am mu ngi koy am. sant yàlla basé woo ci sant yàlla aw ma dara. Hmm. waaw ndax parce que aw ma dara. waaw ndax parce que ñu am ni gis nga leen ñoo ngi tabax ay immeuble immeuble. d'accord comprendre ma yow. dëgg la xaw ma dara dara dara. Malick jógee ci trompeur jógee ci euh, Tyson euh, kii Eumeu Sène Junior wàcc ba ci Boussita lan moo tax nga jël Boussita. ah Boussita mi nga jël pour lan la. ak fi nga jógee yëpp. Boussita man ak moom carrière boor carrière làmb boolewuñu ndax Boussita dafa yàgg di ma topp sama booy bi nii saa saa su ne fu mu ko gis da koy waaye moom moom day. fans la woon ba jël sama numéro di ma woo su ma woowee booy Abdou Gueye mii laa koy jox comprendre bu ma yow. ah sa fans la woon. fans mu dem ba bëgg a bëre ak yow. non a ba. moom fans la ba léegi. Hmm. moom fans la ba léegi. bu Siteu si boppam moom fans la. ba tey ba tey fans la. ñu gis ne signature bi dafa tàng torop. Hmm. coow li bëri seen diggante yéen ñaar. waaw nee na bu jour ba doo bare doo xeex. ndax ah. da ngaa màgget te da ngaa gëj a bëre. ko teg màgget amul. man ba fu ma màggatee Balla Gaye war naa tekki ngembam man fu ma màggatee Lac la deger war naa tekki ngembam man fu ma màggatee Modou Lo war naa tekki ngembam ndax parce que Modou Lo muuma seen mbapat fii terrain central man xale bu ndaw laa te dem naa seetaan ko boobu xalaatuma luy bëre mbëri ñoom ñooy ay paa bu ñu waxee ñuy nekk fii di wàññi seen at yeeg ay affaire yooyu kon maanaam bu bu ñu doon muuma bu géejawaay muuma bu géejawaay bu nekk ikiri Balla Gaye bu nekkoon ikiri Balla Gaye du bëre arène mais mbëru mbapat la woon moo Modou loo si boppam laa la wax terrain centrale bi bëre nañ fi ma gis ko dem seetaan leen ñu bëre ba niil kenn daanu seen morom te boobu xaw ma lii làmb. maanaam waaw kon léegi Bou Siteu bu doon xool si at maanaam ay magante tofa lay doon moom mooy paa. la moo tax nga jël ko laa bëgg a xam Malick. non kooku man ak moom du combat Pape Sarr mooy doomu pikin yaa ngi dégg fi ma wax ak yow. dam ba ya Pape Sarr mooy doomu pikin dem ba yàlla may ko mën a la sama waay ma fu may yow mu taxawaay taxawaay promoteur te sans loolu ku fekk amoon combat wala dara daf lay taxaw comprendre fu may yow te boobu doonagul promoteur yàlla da yàlla def ba mu doon ba dem ba taxawaay taxawaay promoteur ñëw soxla sama combat loolu moo ma bo loolu moo ma booleeg yaa ngi dégg fu may yow Pape Sarr moo ma boole Bou Siteu ndax Pape lu muy doon première fois muy soog a tëgg làmb doon promoteur ñëw soxla ma comprendre point imposé ma Bou Siteu te booy bi yàgg na maa soxla de yàgg na maa soxla di ma laaj yàgg na maa soxla di ma laaj d'accord Malick Ndiaye 37 fu daan Bou Siteu fan la ko yóbbu yóbbu ma mu daan la mu daan ma am na fu mu ko yóbbu kay moom la am fu mi moom combat bi avantage am la. mais man du sama avantage. Mhm. ñu gis seen premier signature. Mhm. gars ne la tey dañuy présenter nga ne dañuy tàngal dañ leen a woo pour tàngal ñu gis depuis boobu ba léegi bàyyi woo a ngi waxante ba keroog ku nekk si mu ne di wane say cuisse. Mhm. maanaam di wane état de forme yi ngeen euh, fi ngeen toll. Malick nan lay euh, pratiquer li nga xamante mooy entraînement yi ci digganteem ak Bou entraînement quoi waaw lu may préparé samay entraînement ànd ak samay mbokk rek boobu li si mel ni mafia bi ay Abdou Gueye man ay booy Baara comprends fu may yow hmm. laas comprends fu may yow ànd ak gaa gars yi bëri nañ da Habib si la mu yab ma si 4-4 ñu dugg si 4-4 da Malika place yéeg si diin yi ma fu may yow yaa ngi yéeg diin waaw ñu ngi yéeg diin kay ñu ngi yéeg diin bu baax a baax a baax a baax a baax a baax chaque fajar chaque fajar ñu ngi diin combat bi la 25 juillet la maa ngi ciy woo sama supporter yëpp ñu ñëw sañse lu nooy ñëw toog ci kaw ma jàpp Bou Siteu defal ko affaire. Jow te yaa ngi ci contrat Bou Siteu le 25 incha allah seen contrat jeex Malick Ndiaye ñan ñooy adversaire am avant Bou Siteu ñu ngi doon dox say combat yeneen adversaire wala kenn doxu ko. non man samay adversaire bëri na. yaa ngi ñu ngi ko doon dox. ba nii ba léegi ba nii sax ñoo ngi ñoo ngi gars yi ngi dox ndax parce que man sama sama combat di yomb. sama signature tamit du yomb day tàng jër nga bañ ko nga nang ko day tàng comprendre fu ma yow mm. man sama komba man dama koy jaay ba ñëpp xam na ni Malick Ndiaye jaay na com jaay na jaay na combat am promoteurs yi loolu la ñuy wër mm. wëruñu kenn ku dul loolu waaw retour de Malick Ndiaye nu muy demee ah xanaa lu bees tàq comme lu bees lu non duñ ko wax surprise lay doon lépp changé non surprise lay doon lu bees tàq lay doon kafe gi day dem. nga ne. kafe gi day dem. café gi fii dara du fi des. dara. maa da ngay tëj Pikine. waaw Pikine laay tëj caabi ko. dégg naa dégg naa yaa moom Pikine de non non non. dégg naa Pikine yaa ko moom. waaw waaw bokk naa suñu ko moom. ndax Pikine ñi ko moom daa bëri. yaay dirigé. bokk naa suñu ko moom. bokk nga ci. waaw bokk naa suñu ko moom. tey la 25. Bou Siteu lan lañ mën a xaar ci moom. loo koy indil. a ah, lu mu koy indil. maa Ndiaye ah. day xeex. day bëre. maa du ngeen mat si niil wax ji bari na de. ah xanaa mu daw. xanaa mu daw ah bu daw xanaa mu daw. yow pare nga jiixaat ak moom ngeen taxaw euh, taxaw seen i toog seen i moom sañut loolu sañut loolu. man combat bi bañu ma si bañ bu bëñ bu damm kanam bu kanam bët bët bu suulu bët bu patt déggoo ma la wax man ñeme naa te bu ma ñëwee la cinq dinaa wane ne man Malick Ndiaye. léegi la 25 kan moo léegi moom ci boppam moom nañ na comme ma dëggalee sama bopp noonu rek andi ko noonu. Mm-hmm. waaw moom na indee noonu boppam. combat bi day neex Malick waa Pikine nga ne. waa Pikine ba doo leen recevoir le cinq comme recevoir comme. di nga bëgg maanaam. nan mbetteel du am. mbetteel waaw doo mbetteel daal yàlla nañ si yàlla musal ñun tamit dañuy ñaan yàlla ànd ak ñun. Mm. ndax bu yàlla ànd ak ñun moom mbetteel du am. te jaam bu nekk ab julit nga da ngay tàllal loxo yàlla ngay ñaan te yàlla mooy maye. waa yàlla ma yàlla may. waaw le cinq kan mooy bëre kan mooy xeex. nga ne. Malick le cinq mm. kan mooy bëre kan mooy xeex ak Bou Siteu. non loolu si le 25 le 25 moom surprise la. ay kuy bëre kuy xeex moom ah. kuy ambiance kuy neexal. non di leen neexal sat ba mu neex mais bu desee lu lu biir géew ko moom ah caay-caay rek moo fa am quoi. léegi Bou Siteu lan la am ci combat bi kon. ah Bou Siteu ah moom le 25 moom kay moom xam naa ne day jébbalu rek xam naa ne moom moom lu mu tar tar tar day ñëw. moom moom man dinaa ko teg lu hmm. waaw. kon maanaam dugg na ci lu mu xamul nga a wax. non dinañ jaxaat ma moom dina xeex dina bëre. avance bi da koo jël ba pare waru ko woon jël. da koo jël ba c'est que dafa um dafa Malick Ndiaye 37 foofu da koo umpalee man xa moom dafa ma jël te xaw ma. dafa ma jël ak boo xamante ne dégg Malick Ndiaye 37 foofu dégg Malick Ndiaye 37 foofu moo tax moom mu ne day jël combat bi bëre man comprendre fu ma ak yow. waaw mais la 25. dina xam qualité Malick Ndiaye 37 foofu. looy wax waaw comprendre fu ma yow. Mhm. dina xam. fubam dina xam léppam. incha allah ndax parce que man ak moom ñooy ndes si biir géew gi. wax ji lu mu bëri bëri bëri man ak moom la cooli cooli moom ginaaru kookali la te ginaaru kookali day xam boppam. dina la tontu nag. non kookali la ginaaru kookali la looy wax waa Rent DKR. nga ne. waa Rent DKR ñoo leen di wax. promoteurs yi. ah promoteurs yi ñoo ko tëgg promoteurs yi ko tëgg te xanaa di leen sant nag ay Elin maa ngi leen di sant ay Pape Sarr maa ngi leen di sant. comprendre buzz ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm comprendre fu may yow di leen wax li ngeen def rafet na mais combat bi tamit metti na trop ci ñun ñu wax parce que jaay nañ suñuy xar def ko ci combat bi lépp lu ñu amoon def nañ ko def nañ ko ci combat bi comprendre fu may yow waaw léegi après combat rek après ñun tamit dañuy xam ne ñuy taxawee rek. Mm. noonu rek la demee quoi. maa ngi lay bëggee parce bi dañ see jàpp man Malick Ndiaye man dama see jàpp. waaw maa ngi lay jaajëfal jaaral noonu nga nuyoo nga woote maa ngi lay di sant Baye Galas Mbacke Afia di Mamor Mamor Mbacke maa ngi koy sant bu baax a baax a a baax a baax maam maa ngi koy sant bu baax a baax a baax maam Xaadim maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax baax di wax njabootu suñu Afia yëpp yàlla nañ fi yàgg te wér di ñaanal Baye Fall yëpp waa Tasawar Sixaar si kaw si kanam di leen ñaanal ñoom ñëpp si kaw si kanam gudd fan ak wér di leen wax ñu pare combat bi Pikine ñooy pare combat bi combat bi amateurs yi boo dabdaloo sa supporters yi amateurs yi ñoom ñooy feesal stade ndax parce que combat bi amateurs yëpp ñoo ngi koy préparé di ko waaj waaw di profité nag di sant ñuy jàppale waaw di sant mbay Tëldoo mbay Tëldoo maa ngi koy sant bu baax mbay Tëldoo borom Europe borom diaspora bi Mbaye Tëldoo Mbaye maa ngi lay woo jàppal ci combat bi waaw ak mafia bu nekk ca ginnaaw yéen ñëpp na ngeen jàpp ci combat bi Mbaye waaw Amadou jaañ maa ngi koy sant di ko gërëm di ko wax mu jàpp ci combat bi Amadou jaañ maa ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla may biir pikin waaw ma Amadou Diagne kase ñun ragaluñu loolu ci ala yaa bële waaw di wax am di wax Isaaxa Diop ñoo ngi lay woo suñu kombaa nga jàpp ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax baax di la ñaanal gudd fan ak wér tamit ak jàmm àdduna ak jàmm laaxira waaw Lamine Gueye Zanu moo ngi lay jàppale comme nu ma la koy waxee saa su ne ak alaaji ak courage dañuy sonn si yow nga xam ko ak nga ñàkk ko xam waaw ñoo ngi lay woo ci combat bi nga jàpp ci bu baax a baax a baax cinq bologu bi laa bëgg yow Lamine Gueye yow laay waxal nga jënd ko waa zanu seen loxo laa ko baay waa noonu la demee jara ñeen ñëpp ñoo ngi leen di woo comprendre point yow mbay bu gàtt maa ngi leen di woo maam booy maa ngi leen di woo sama combat bi ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax a baax Abdou Gueye Mortala ay spikin Mortala ay spikin maa ngi lay woo ci combat bi nga jàpp ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu dem esat bu Siteu ma defal ko affaire ci gaaw di ko wan cin bokkul safin waaw cu day xam boppam yow ginaaru kokkali nga te ginaaru kokkali sooy bu jum maa ngi lay woo ci combat bi sooy bu jum waaw fàllu fàllu immobilier waaw fàllu gay fàllu gay immobilier maa ngi lay woo ci combat bi bu baax a baax a Victor Victor maa ngi lay woo ci combat bi gauche droite bu Alaaji Mbay maa ngi lay woo ci combat bu baax a baax a baax a baax a baax Cekka maa ngi lay woo Kaasu Meew maa ngi leen di woo Laurent sama mag maa ngi koy woo ci combat bi baax baax baax baax Babacar Sanu maa ngi lay woo jàppaleen ci combat bi noonu la demee te Alaya Bële merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal di la woon ci Malick Ndiaye 137